mo gën ci réew mi man suma déggé tay suma déggé yenn candidat yi di wax nan France dégage damay dindi CFA ku wax lool buma la déggé damay xamni yow xamoo li géej riir maa ngi woon ci yenn candidat yi ngay wax su ma leen déggee ñu naan dañuy dindi franc CFA wala ñuy attaqué ay réew yuy yàgg dimbali Sénégal yu mel ni France damay tiit ci ñoom parce que damay xam ni ñii xamuñu lan mooy réalité pouvoir xamuñu lan mooy réalité état xamuñu Sénégal nan lañ ko yoree depuis 1960 loolu ku ko xam tund état bi nekk ci yenn position yi am na loo xam ne doo ko ñemee wax sa boo leen seetloo candidat yi ñaar wala ñett yi géré am na loo xam ne duñ ko mës a wax seen làmmiñ parce que xam nañu donc bu ñu jël réew mi di ko dugal ci loxo yoo xamante ni c'est des mains inexpertes et inexpérimentées loolu nañ ci def attention bu baax Sénégal buñ ko fooyee lu ñuy sécuriser la du lu ñu war a palam di ko teg ci loxo ku mën ak ku mënul dégg naa aussi ndax kooku tamit dinaa ko tontu ndax fi mu nekk nii dañ ne ci campagne waa ji taxaw naan liggéeyal Macky Sall war murid yi la yow yaa wor murid yi Madické Niang laay wax moom buy politique moom suy politique na politique politique am te bàyyi murid yi kii war murid yi mooy kii wax ci kàddu murid yi te murid yi joxuñu la seen kàddu muy Madické Niang moom moo war murid yi Oui, politique politique, politique politique c'est un champ républicain qui n'a rien à voir avec des confessions ou des convictions religieuses dañuy politique ko ko yem bu encore une fois monsieur Der wax nga ko financement yi day continuer groupements 300 groupements qui 300 groupements, je dis bien 300 groupements. 300 groupements. Comment on a nga def wasalaam